asalaamaaleykum mbokki internet yi nuyu leen baax a baax am contentement waaye mbégte bi di leen indi li gën a fës ci xibaaru làmb la tey nag dama fekk ci beneen champion waaye beneen daanaan boo xam te ne mu waajal combat bu mag ci journée bu mag ndax bu ñu nee le novembre diggante Siteu ak Papa Sow ñi dañ cee toftal yeneen di combat waaye combat yoo xam te ne bu ci nekk mën na grand combat ñi nekk lañ indi indi caat bu caatu ngéwél bu neex a neex a neex waaye internet yi jël bi ak Leewtoo TV damay ni kontaane bu baax ma nuyu bàyyi ko ma nuyu internet yi champion bi nuyu naa la. yee Ndeye Mbacke maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi gërëm suñu ñaari waajur euh, ñu ngi nuyu waayof fépp di nuyu war jël nuyoo waayof di ko teg si loxo général maam Doudou Laye di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaan Baye Abdoulaye Diaw yàlla na yàqu yàlla na yàlla yokk leeram te tas nu si barkeem di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fa nekkal Serigne Touba di nuyu waale suma sëriñ sëriñ Cheikh Fall di la nuyu bu baax di nuyu osin di nuyu Matu di nuyu seen caméraman yi maa lay bëggee bu baax. suñu jàmbaar fàq tëdd nuyu naa leen bu baax a baax waaye balaa may ñëw ci combat boobu la rek dañuy delluwaat tuuti ci ginnaaw nga amoon combat bu mag diggante ki nga xam te ne mooy Boy Dakar nga jëlee ci li ci jëlee ban jàngat nga ci jëlee. waaw man ak Boy Dakar li ma si jàngat bari na torop torop torop waaw wax dëgg yàlla naa si lu bari te waajaat naa daal pour préparer pour ñëwaat ndax tey jii nii làmb doonte ne ay xale lan mais làmb bugguñu si pour toog si yenn at yi comme gars yi ñu siy toogee benn at yi daa am lu ñu si dugal muy pour bëgg tekki bëgg teral suñu waajur yeex ñu si xaj bu nekkee nag dañ si toog pour bëgg ci loolu dañ si dañuy def li nga xamante ni moom la méngool quoi te instant yi ñu ngi si te incha allah le 6 bu ñu jëflante Anaconda ba pare dinañ xam ni ñuy ngi waaj bu baax. yow bu ñu bàyyi ma ñëw benn benn dégg nga. waaw attaqué wu ma ko wala nga xiif attaqué wu ma ko dama xam ne ainsi moom moo nekk si terrain bi rek. comme moo nekk terrain bi. Mm-hmm. waaye yegseeguñu ci moom dañoo ne mbër ak laaj ak lu mu àndal. Mm-hmm. ñu ne nag man tàppet laa dafa jóg daaw de ñu ne làmb nag am na lu mu àndal làmb amul lu mu àndal yow à part la lan lan ngeen. waaw man moom wax dëgg yàlla man làmb laay def dëgg la nag doonte ne damay wàccee ay conteneur di jaay yooyu noonu mais yooyu yëpp consommer si man làmb laa bëgg man làmb laa bëgg te képp ku ma xam-xam na man làmb laa bëgg te si laa nekk loolu nag maa ngi si mais bu dee làmb mooy paie boobu deux. waaw parce que damaa bëgg làmb xëy na làmb xam nga bi ñuy doon xale di mbapat bu ñu neex ñu jékki-jékki ba mu neex na ñu bàyyi mais boo xasee bu dugg arène am ñu topp sa ginnaaw xam nga. am ñoo xamante ni yow seen lépp yow la kon bu boobaa da ngay mujjee concentré wu te boo xoolee maa ngi koy wax sama face à face passé man damaa jàppe woon làmb fokk waa mais du fo non du fo làmb du fo dañ koy rafetal rek naan fo mais du fo mhm. ñi nga xamante mooy ci journée bu rëy koy waajalee waa di nuyuwaale waale aussi sama coach maa ngi koy nuyu bu baax Mouhamed maa ngi koy nuyu bu baax coach Met wax dëgg yàlla mu ngi may toj ay coono yu métti di nuyu waa sere Serena fitness fii bu baax a baax a baax di bëggee ñëpp nga ne. mu ne le 6 naka nga koy waajal sa diggante ak Anaconda. waaw le 6 instant tool nii xëy na waaj yi ñu ngi si finition yi rek instant yi si finition yi la nekk waaj nan bu baax a baax a baax sunu adversaire tamit xam nañ ni waaj na bu baax a baax bëgg na noo jëflante daal làmb ju neex si moom bu taxawee dëggal boppam. démb maa ngi koy wax nee naa ko amal ngor ba bu bi sifflé bul daw di yóotu ay loxo di ma jox say loxo taxawal ñu def yu fi góor quoi. taxaw xeex bëre bégal amateur yi mais moom danga naan bëreet mu daw di laaxatu quoi man na mu ma lool si bés bi. non non yaa ngi seetaan combat anaconda boo ko nee tey say loxo lay daw di yóotu di la jàpp man dama bëgg mu taxaw ñu xeex ndax man ku xam samay làmb xam ne day am xeex man moom nga bëgg da ngay xanaa nag nga daw jéem koo jeexal mais bu taxawee moom. wallaahi lazim dinañ xeex dinañ bëre. gis nga Anaconda gis nga phono bi yor ba gisee dernier sortie mu def gis naa ko démb démb rek gis naa ko démb def nan benn jàkkaarloo Anaconda wax dëgg neex yàlla a ah, entraîné na waaye tamit naan na ay baay bajaan quoi. Ah, <laughs> loolu mooy la non da non non non yow man ñi ma bëreel Anaconda aussi gën a la booy xool à part man man min naa poids lourd quoi te Anaconda du poids daa naan ay baay bajaan te lim naan si kanam gi la génn quoi man moom Anaconda aw ma xel ñaar si moom wax dëgg yàlla. man xaw ma baay bajaan mooy doom yi xew rek doom yi gars yi di naan di <laughs> ay baay bajaan la naan. non sérieux looloo am gis nga Anaconda yow kañ kenn du la wax xoolal kanam gi ndax di fi gis dara lu dul naan dara ak kanamu Anaconda gi nga jàkkaar. no wax dëgg yàlla nag waaj na te champion la wax dëgg yàlla ndaanaan la kat la gaynde la mais dama bëgg ndigim ba Baye Fall la bor bi siflee nan def yëfi Baye Fall Baye Fall la moom mooy mbëru Baye Daaru yi te jour combat ba comme repas dafa ñëw dalu ci woon yow boo ñëwee doo ci dalaat fi nga jógee ba fa la lay delloowaat non matu nag bàyyil di ma wax di wax ñi mbër di ma tënkaale moom man du ma réparé réparé du man man ak réparé bokkunu dara si làmb champion la ndaanaan la xëy na mën na ma ëpp sax qualité ah mais man moom yamuñu si làmb quoi bu dëgg dee dëgg rek dëgg la nag mën na ma ëpp ay qualité mën na ma dàq bëre man sax man na ma ko def mais man ak réparé bokkuñu ay qualité te man ak réparé bokkuñu ay adversaire yin bëreel ana Konda sax man ak moom bokkuñu adversaire yin bëreel xëy na nag làmb moo doy waar ma ñàkk sama diggante man ak Boy Dakar moom mu teg la ay victoire ma war a rectifié wu te incha allah wallahi barki Serigne Touba waxuma ay caaxaan li ma bëgg mooy bu arbitre ne bi mu dëggal boppam mais xam naa ne du ko def quoi. wala non anaconda ñi meñul taxaw xeex non ku ñi meñul xeexax ñeneen ñoo xamante ne ay ndaama bu bu ko dóoree tànk yi di zalone asantuma ak man bu taxawee wallaahi lazim ma duma ko. billaahi bu taxawee ma duma ko barki Serigne Touba li ma lay wax du loo xamante ne ay nii la wala nële wallaahi lazim bu taxawee ma duma ko. combat non man moom muy bëre muy xeex man bëre dóor laay def man damay man ku seetaan samay combat man ba bu bu nu àggee suuf sax bu nuy jóg damay dóor man moom damay dóor man damay bëre di dóor li ma koy ñaan mooy danga ni Baay Faal nga Baay Faal gi ngay woote bu dee dëgg la si yow dama la ko ñaan jëmmi maam Cheikh Ibra Fall bul daw di yóotu samay loxo taxawal ñu xeex barki Serigne Touba waxuma pour teg la xel waxuma pour dara taxawal nga dëggal sa bopp ñu bégal amateur yi ñëpp nee nañ ñun ñaar sunu làmb mooy làmb ji daax saison bi bul yàq loolu taxawal nga def yëfi góor ma def yëfi góor te wallaahi bu ñu demee ba arbitre def lépp ba pare dinaa ñëw ba si moom ne ko defal yëfi góor nga taxaw. barki alxuraan parew ma pour li njaakeen matu man ni may signature laay bëree maa la naan matu sax nday mbaakee man ni may signature laay bëree wër na sëriñ Touba na taxaw dëggal boppam rek man man loo man moom wax dëgg neex yàlla adversaire la champion la mais wallaahi. damaa bëgg mu taxaw ñu bégal amateur yi. moom dafa nekk waa Parcelles te fay la ci man maax waayoof ay bor man moom maax waayoof seexuñu ay mais man du ay bor ay waayoof ay waa Parcelles man boru sama bopp sama bopp laa yorol bor xam nga nu ma sama boppu bor mooy damaa war a am xaalis si làmb loolu mooy sama bor. combat bi bi maa ngi ñaan yàlla sunu borom mu may ma si ndam lu see dugg mais li ma lay wax li ma wóor. ndam yàlla sunu borom moo ko yor maa ngi ñaan ndam mais li ma lay wax li si wóoru mooy anaconda bu taxawee dëggal boppam wallahi dinaa ko duma dinaa ko daan bu taxawee nag xaw ma mu def non non man damaa mën a bëre man anaconda bu bu bëggee man bëri naa ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a te anaconda te damay ñëw ba patax ñoom mais maanaam anaconda li muy ñoddi day jéem a ñoo dinte man man benn business démb dem nañ signature pare mu ne ma buñ génnee ma génn toog naa plus de vingt minutes di ko xaar si buntu bi mu bañ du génne wallaahi bu génnoon dinaa ko def lu sadik toog naa plus te moo ma njëkk génn mais daa bañ ñu du génn fi lii bi am si si saal bi bu génnoon si saal bi wallaahi naa ko def lu métti deful yëfi mag dafa ragal kooku ragal la day nax ay nitam billaahi bu nu wéete kooku seetaan leen combat bu ko góor dóoree tànk yi dootul taxaw. non daa am luñ foogoon ñoom. daa am luñ foogoon te foogoon moo leen di. wax ma ko non du ma wax ñoom. Oh, Anaconda waa këram dan ma doon wow pour combat bi taxaw. xëy na nag danoo jàppoon ni caatu ngéwél mi benn nooy neex la bu mox mu daanu mais bis bu si àggee <laughs> ba la si soreetul yàlla na nu yàlla may tal fekkee. non man nag damaa miin loolu. man sama premier combat petit baboy laa bëreel bi may bëree petit baboy aw ma soixante quinze kilos sama deuxième combat diwaan laa bëreel muy dixième combat am ma ñëw duma ko daan ko kilo mburu man ak moom bi nuy bëre cent et quelques kilos la dama koo duma dama koo daan man poids sonalu ma ndax góor laa te liy góor mooy dëgër te sama fit si man la sax waa loolu noonu ñun am na ñoo xamante ne ñun ñu ñuy jàppale wax dëgg neex yàlla ñun am nan ay ku si mel ni sama ndijaay Thiass Mbaye tax na man nam ma dara bu ma amee combat da yéeki xaalis jox ma ne ma demal nga na ji xam nga di si jàpp bu baax a baax a baax a baax ak ñeneen ak ñeneen en tant que mbëri nag man wax dëgg yàlla sama combat maa ngi ko waaj ji woon wax dëgg yàlla di nuyu au passage yaxi Bambilor maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Bambilor yëpp di nuyu Yaasin muy tàntu yaxi bambiloor maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu saacee cinquante di nuyu sama yeneen gars yi ma àndaloon foofu yëpp maa leen di béggee bu baax di leen waaj ñi si am combat yàlla na leen sunu borom defal ndam noo dew ma uti wàllu man bambiloor ku ne xam na ni sama dëkk la samay maam foofu lañ jóge ñëw fii sama dëkk maam laa demoon rek waaji te incha allah anaconda dina xam ni waaj naa te wallaahi am na combat lu balaa temps bi ñu may lu ñu xaw a xoj ngeen di bëre journée bu mag ku ne Siteu ko Papa Sow xam ne combat boobu ku ci indiwul mbooloo yaakaar naa grand combat bi ñu suuf ndax ngeen di waajalee ci wàllu mobilisation. bi moom ñun moom wax dëgg neex yàlla dañuy woo monsieur le ab Abdoulaye Diouf Sarr ministre sax laay wax maa ngi koy woo bu baax a baax a baax ndax ñun wax dëgg neex yàlla donte ni moom nekkatul maire yoof mais ñun couleur yoof la ñuy défendre te moom moo ko ñor te doomu dëkk bi la. te ñun xale yi dañuy pare pour dem stade wallahi sama sëg combat barki alxuraanu karim gis nga li may indi stade lii desay ëpp wallahi damay am ay problème mu kaar ñoom nag dañ siy jàpp bu baax Ablaye Diouf Sarr monsieur le maire Baye Seydi maa ngi koy woo moom tamit te tamit mu munuy jàppale ay jàppale yoo xamante ni day tegu kuwaa monsieur le maire Baye Seydi ñun ay mbëri yoof lan drapeau yoof la ñuy défendre kon nag yow bu fekkee da nga ñëw ne da nga jóg pour defar yoof ñun ñi nga xamante ne ñooy acteur principal yu jóg di représenter drapeau Yoff dañ bëgg nga nuy jàppale mais am na loo xamante ni man moom wax dëgg neex yàlla du wax bu naqari quoi mais am na loo xamante ni man caatu ngéwél man jàppalewu ma am na yenn somme yoo xamante ni jàppalewu ma wax dëgg ne yàlla ndax somme yooyu noonu bu naree miti sax sama booyi ñaar wala ñett mën nañ koo génne kon en tant que monsieur le maire daa war di génne somme boo xamante ni jëndal nu ay billets defaral nu ay defaral nu ay t-shirt jëlal nu ay kaar kon ab Ablaye Diouf saar ni mu ko doon defee xam nga di nuyuwaale moo faal mooy pour pour yoof bi ñu ngi koy woo ci combat bi bu baax dañ bëgg mu ñëw jàpp ci combat bi ndax moom tamit yoof la dëkk te couleur yoof lay défendre te boo ba léegi ñu ngi am ay combat di bëgg mu siy jàpp xam nga daa war a jàpp bu baax moo ñu ngi lay woo si combat bi bu baax pour bi ñu ngi lay woo bu baax nga ñëw jàpp si kombaa bi di woo moo faal sec moo faal sec tamit ñu ngi kontaan si moom di gërëm sama ndijaay yi bu baax a baax di nuyu sama coach bi maa ngi la koy wax encore une fois maa ngi nuyu sama coach bi Mouhamed bu baax wax dëgg ne yàlla ndax bi ma fi ñëwee ba léegi mu ngi may teg ay coono yoo xamante ni man sentir naa ne mu ngi may teg coono yu métti di ko ñaanal li nga xamante ni moom la bëgg ci bés bi incha allah yàlla defal ko ko muy ndam te incha allah dinaa si xar sama bakkeen bii ba indil ko ndam di bu baax. ceebu géwél bis boobu moom dinaa ñëw tuus lu neex ndax Siteu laa bokkal bés te Siteu ku bokkal moom bés booy tuus mu neex dangaa war a gën a dolli te incha allah lépp lu ma ci man dinaa ñëw tuus tuus mu neex tuus tuus mu amul fen encore une fois di woo waa États-Unis di woo dubbun maa ngi lay woo bu baax nga ñëw jàpp ci combat bu baax a baax a suma père nga suma lépp nga di woo aussi booy bawal booy bawal maa ngi lay woo booy bawal encore une fois maa ngi lay woo si kombaa bi bu baax a baax nga ñëw jàpp si noo xam nga combat bu bu mag la nuy bëre te instant toll ni bëgg nañ bu nuy ñëw andi beneen xar kanam kon fëlee ko ñu woo ñi nga xamante ni ñoo siy jàpp di di nuyu aussi waa écurie yoof di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Baye nga ak Abibu entraîneur yi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama mbokki mbër yi fa nekk yëpp di ñaanal ñi fa am combat yàlla na leen sunu borom defal ndam incha ngi di waxaat encore une fois di woowaat ñëpp di woo yoof gépp ku ma limul damaa fàtte di woo Bamba Fall Bamba Fall maire maa ngi koy woo bu baax sama papa sama lépp la maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax képp ku ma limul rek damaa fàtte woo di woo Baye Jili Tarkindaa Baye Jili Tarkindaa maa ngi koy woo di ko gërëm wax dëgg neex yàlla bi may dem Bambilor di pere combat tamit bi ma fa nekkee bàyyi jili tarkindaa xaalis bu bari la ma doon yónnee di oo mbayaaru jigéen ñi di leen bëggee di bëggee kenn aussi tamit maam jaara jaara te mu ne marché yoof maa ngi koy gërëm bu baax a baax jaara xam nga lu tax mu koy gërëm mooy tey ji damay nekk bambiloor lu doy waar si jigéen damay jekki-jekki rek mu ni ma aloo mbër ma ne ko waaw mu ni ma xoolal sa wéef dugalal naa la xaalis maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal jàmm di woo njaay njaay waaw njaay maa ngi koy woo bu baax njaay bu jaara maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi bu baax ku ma limul damaa fàtte di bëggee ñëpp di kontaane ñëpp waaw. kontaane naa ko bu baax a baax moom caatu ngéwél waaye di bëgg sama caméraman yi Nduufa TV la woon jéel bi ak Leewtoo TV jox leen dig daje beneen yoor ak beneen champion ci beneen koñ ci beneen waxtaan jaajëf.